asalaamaaleykum mbokku internet yu 221 people te ñooñu am mbégte am kontaan dalal kilifa koo xam ne xam-xam dafa manque euh, si wàllum faj traditionnel ñooñu dalal sëñ Bassirou Ahmadou bu cabinet sëñ Abdou Karim sëñ bi ñoo lay dalal. di la nuyoo di la jox sa waxtuwaay di la bàyyi ak internet people. auzu billaahi mina shaytaani rajiim maa ngi nuyu bépp xarit bi Sénégal bu nekk Sénégal di staftal sëñ Abdou sama xarit mboolem jullit. waaw sëñ bi bu ñu toxee def def seetlu dëkk bi wàllum impuissance sexuelle dafa bëgg trop loolu la ma ko indi. waaw maanaam loolu la si gën a bari nag quatre vingt pour cent yi ñëw si ñun maanaam xale yi nga xam ne ñoo am di sept ans maanaam di seetaan ay vidéo prono am nga xale bi ma xam nga góor en tant que bu seetaanee vidéo porno bu pare mën na am yëg-yëg maintenant bu amee yëg-yëg nag. awraam fekk mu maanaam xaw am nu mel day jël loxoom di si fo maanaam xam nga loxo bi maanaam nit dañuy yaakaar dafa bari yàpp nii loxo yax la gën a bari yax. voilà yax la gën a bari. sa xam nga yax ak siddit àndul boo koy téye maanaam di si fo bu yàggee siddit bi day day faible maanaam mën na faible nag l'âge de 17 ans topp nag ba kere ngay am jabar bis boo amee jabar si ngay door a xam ne yow. xam nga faiblesse nga bu amul jabar maanaam xam nga awrab góor góor góor normal saa bu xëyee dina yëg boppam yëg ni góor la ah wala muy dem di sangu ji si wanag wi yëg góor la awra bi di taxaw léeg-léeg mais maanaam awra taxaw boobu muy taxaw nag maanaam bu dee koo xam dara fooy boppam bu amee soxna du si mën dara ndax si bi maanaam mootudul awra bi ba mu mën a sëy ak soxna si loolu moo koy indi première bi deuxième bi mooy ñi nga xam ni dañuy tamit foye foye awra boobu ñaar la bu njëkk bi nit ki day seetaan ay ay ay affaire film keneen ki dafa am rab rab da koy def coro rab quoi lu ñuy wooye coro rab coro rab bi su bëggee seeg yow day ñëw si yow rek ñu ngi naan rab da lay gis mais doo gis jinne rek jinne laa mën da lay gis mais doo gis yow maanaam moom bu la soxlaa nag day ñëw nga seeg moom seeg moom mooy yow nga jël sa loxo maanaam di foye sa awra boo ko defee ba yëg sa bopp ba génne li góor di génne moom day dem nga toog nag di réccu nga toog naan lii moom su ma yëgoon du ma ko def mais boo demaatee quelques jour rek cinq jours six jours rek day ñëwaat sa xel nga defaat ko léegi nag xam nga mën ko def benn yoon mais xam nga ñi muy jàpp duñ ko def benn yoon bàyyi waaw xam day neex dañ koy def topp ko topp ko ay at léegi nag buñ ko defee nag mooy dem ba seen awra bi nag léegi sit bi mooy dee duñ nekkati góor mais nag fekk amoo soxna moom doo xam ne ko góor wala déet ndax xam nga xam nga sëyoo ñu si bari boobu am ñoo xam ne moom dañ koy essayé buñ ko essayé feneen ñëw si yow ni ah man de sëy dafa mel ni man amatuma ngóor quoi ndax vraiment su may sëy damay gaaw egg wala naa mais dañ lay nëbb nag boo leen laajee ne noroon def bi nga nekkee xale mais duñ la ko nangoo wax mais boo leen mais boo di laaj bu yàggee dañ na naan vraiment ma nekkee xale ma doon fooye sama bopp quatre-vingt-dix pour cent yi ñoom la moom la léegi bu ñu déggoo say kàddu dafa mel ni ñaar da koy joxe mm. mooy wàllu masturbation mm. ak wàllum rab mm. léegi loolu neex na faj waa si maanaam bu dee bi nga xam ni dangay ngay sa bopp dañ koy faj ba mu wér bu dee tamit bu rab bi nag moo gën a compliqué tuuti xam nga bu rab bi mën nga faj mën nga faj maanaam mbiru kàttan bi mais rab bee des sa xam nga booy faju du def li ngay def tamit du wér xam nga yow yaa ngi faju ba pare jël sa nga xam ne am nañ jabar bàyyi fay seen jabar dem di fooy seen awra ndax ñoom si lañuy gën a yëg bànneex voilà xam nga ñooñu moom pour nga pour nga génne ko si ñoom ñaan moo koy dindi ñaan. ñaan waaw ñaanu rab loolu ñu nañ koy def loolu moom bokk na suñu liggéey ko ndax xam nga booy def maanaam booy wax li nga xam ni rab a koy def tamit war ngaa mën a faj faj li nga xam ne moom moo koy waral muy rab quatre-vingt-dix pour cent yi léegi ñaar yooyu la maanaam ñi xam ne moom am ñoo xam ne nekkul rab nekkul dara dañoo tàmm seetaan ay film rek am koo xam ne moom bëgg ko sax bëgg ko walaay bu sañoon du du ko def ndax bu ko defee tey tey soo mu rëcc mais rab bi moom moo koy forcer nga dem ba am jabar continuer ko mais kooku boo ñëwee si ñun moom dañ lay maanaam bu dee sam bu dee am nga moyen yi xam ne day mi ñëw ñoo xam da nga naa bala ngaa faj kàttan bi fajar rab ba pare ñun la moyen bi la amul mais boo amee moyen moom dañ lay njëkk a fajar rab ba pare wala ñu boole ñaar yëpp jox léegi fekkee wàllum koo xamee da ngay wax waxu fekkee bu rab la. Hmm. loolu da nga ne foog ñu ñaanlu. Hmm. mais fekkee kii da xam dafa doon masu masuwe ba am ko kooku noo koy fajee. non kook garab la moom mooy garab bi kooku moom garab bi ak guro bi ak lu mu garaaw garaaw garaaw garab bii nii soo ko jëlee benn fan tey tay tey tay ñu mën a jabat tey tey nga ñëw seet suñu dangay ngay sëy normal bii nii sa bii li ci gën a garaaw mooy en même temps traitement la maanaam da ngay tey tey mais boo ko toppee day continuer da ngay wér un mois deux mois da lay faj ba nga wér plek ak nag ak nu mu garaawee garaawee nag nga xam nga loolu mën naa indi tële loo xam nga xam nga bokkuñu faiblesse sexuelle xam nga impuissance ba léegi bokkut mooy ko tële faiblesse sexuelle nag mooy ko manqué mooy ko sa ngóor a ak kuy gaaw egg ñett la ñett yu bokkut la ah ñett yu bokkut la kuy gaaw egg moom maanaam góor normal trente minutes am ñu sëy ba quarante minutes. jamono ji am na jamono ji am ñoo xam dañuy sëy ba quarante minutes mais yow booy sëy ba quarante minutes ba si yàgg ngay sëy dix minutes ba si yàgg ngay sëy cinq minutes fa nga jëm mooy mooy tële rakk tële la ni mu nekkee minutes lay xëy nekk zéro doo sëyati wala mu def lan wala muy def yow boo xëyee mel ni góor gu mel ni góor nga wóolu sa bopp saa boo ñëwee ba tëdd si wetu soxna si rek courant bi dagg doo man dara sedd guy nga naan man dañ maa liggéey dañ ma takk xala wala rab la des fois du rab mais faiblesse sexuelle maanaam léegi feebar boobu léegi moo si jamono lekki la ndoxum siti la hémorroïde la tension la diabète la yooyu yëpp da koy def. Euh, sëñ Bassirou Ahmadou yow ku la xam xam la ngay yëngu si mbiru lasaraat est-ce que loolu mën nga ko tojal suñu mbokk internet yi. lasaraat. Hmm. waaw lasaraat mooy mooy kuy ñaan rek mooy ñaan lasaraat mooy ñaan bi baax bu alxuraan bi mooy mooy moom maanaam mooy ñaanu alxuraan xam dafa am xam-xam bu ñuul ñooñu moom ñooy ñaane naneen quoi naneen bëgguma si dugg ndax ku nekk sa ñaan mais ñooñu ñooy ñaane naneen ñooñu ñaañu si alxuraan mais lasaraat boo ko déggee mooy koy ñaane alxuraan. léegi lan mooy njëriñu lasaraat. waaw lasaraar mooy yow mooy yow maanaam yow nga tëju xam nit ki day tëju toog say buntu say buntu tëju dara du baax lool laal loolu laal mu yàqu walla nga yor xaalis nga yor nga mën a yor million tey tey suba doo gis dara xam loolu am na ah yow nga dem ngay maanaam nga ne si place ku fa ñëw raw la xam nga doon léegi yàlla mooy def lépp. Hmm? Hmm. xam yàlla moom boo waxee rek moom yàlla moom da ngay tëj ndax yàlla mooy def lépp mais yàlla nag moo fi indi ñaan loolu mooy rasa nit ki dafa war di ñaan lu si lépp lu muy def bu dee bu dagan ñaan bu dagan wala yow yow nga nekk sa soxna bëgg sa soxna du xool beneen góor yow kese loolu dagan na ndax soxna la mais bu dee bu dee koo xam takkoo ko moom ñun duñ ko def. loolu ndax day euh, day dugal nopp. déedéet déet bokkul nopp. noonu maanaam mooy ko koo takkagul koo bëgg mu bëgg la dégg nga ma ne yooyu ñun duñ si yëngatu ñu koo takk ba pare koo takk ba pare bëgg mu gën la bëgg xam loolu dagan na a nga am sa jëkkër gis ni yow sa jëkkër cafeelam des na tuuti loolu tamit dagan na lislaam maye ko nga ñëw ñaanal si mu gën la bëgg wala nga am jabar joo xam ne maanaam day dox. kon suñ la euh, déggee moo lasraar lu mu tënk dafa bëri. waaw dafa bari lasraar moom maanaam mooy sëriñ buy ñaan si ñaan gu baax alxuraan loolu mooy lasraar tënk na lépp ñaan <laughs> mi bu nga toog ñaan loolu mooy lasraar. dëgg ñaan gu baax mooy lasraar. Mm-hmm. léegi ñoo lay bàyyi ak internet 221 bu fekkee dafa am loo leen bëgg Euh, jottali balaa émission bi di yeex nii. waaw waaw li ma la gën a bëgg a jottali mooy góor ñi nga xam ne dañoo feebar ñun sama cabinet bi nekk Touba jigéen ñi ñoom ñooy ñëw di leen réclamer naan sama jëkkër mënuluma dara mais su ma ko nee dama faju ji mu lànk dafa am complexe. bari na bari na si góor yi léegi wallaay seen jabar ñoom ñu wut seen xaalis ñëw jëndi garab yóbbul seen jëkkër si dañ naan sax ni ma koy joxe bu ko xamee du ko naan man léegi garab yi da ngay dem nga defar sa jinjeer def si tuuti du ko mën a xam xam loolu àq la may ñaan góor ni ku si feebar ah ku si am koo xam mënul sa soxna dara nga faju ji hmm? waaw ndax ndax xam loolu farata la comme ni dépasse ware noonu la ware da war a mënal sa jabar dara di ko satisfaire loolu mooy yoon mais bu dee soo tëddee sa soxna benn minute doo fa yàgg xam nga yow daanu nga yow moom yëg nga dara mais moom yëgul dara ndax jigéen dafa am foo xam fara wala. fa la war egg pour daan yow góor gi saa boo yëgee rek moom yëg na non bokk leen may ñaan góor ñi dëgg-dëgg foo mën di nekk Europe ak foo mën di nekk faju leen ndax loolu dal nañu bari sa ñu ngi koy nëbb ndax jigéen ñoom ñoo ñu koy waxal képp ku nekk Europe nag soo bëggee si garab soo ñu wooyee ñun mën nañ la ko ni ak am na GP fépp si monde bi New York maanaam a bi laa monde bi laa koy tënk foo ne si monde bi rek boo ñu wooyee soo bëggee en gros mën la ko yónnee loo bëgg rek mën nañ la ko yónnee maa ngi nuyu sëñ Abdou Karim di ko sant di ko ñaan yàlla na fi yàgg